ñu seeti ma dikka ñaa ak burgaan ñu naan ko alaaji bay di fii toj na fii Ngeen ma su waajaa ngi sal seet soo ko mosee di nga taal sal jërëjëf jërëjëf di maa ngi lay nuyu góor géwél di sant di la di jàmm yal na la yàlla defar jàmm defal la tamit taw féex tey dañoo kontaan dañoo ànd ak dal parce que Sénégal benn bopp mën a ko xar ñaar li ma doon wax yëpp dafa ñëw ba teg suñu tànk am na ñu ma woo fu nekk ci diaspora na naan ma ma dikk yàgg nga alerté ma dikk yàgg nga bés bouton bu jaune bi naan attention am na lu xew kon tey situation bi ñu nekk ni di situation boo xam ne dafa rajan combat scolaire rajan combat scolaire rajan combat la def dafa toj dafa nëkk leer parce que dëkk bi mu ne nii amoo amoo fooy jaar ndax ay yàqu-yàqu te loolu nag wax dëgg yàlla man damaa taxaw tembe pour daal di koy faj defaraat ko ndax waxoon naa leen mos leen ma 2019 sool ma mosee ngeen xam ne nit ki jàpp moo tax ma ànd ak Adja Khoudia eh. ne ko say nawle dañ fay jaar Elisabeth Diouf dafa éducation solidarité partage kii tamit sal madame Viviane Wade créé fi ONG ba Marème Faye Sall tamit de servir le Sénégal moom tamit am na projet bu rëy boo xam ne alaaji bay di mhm. sama soxna si da ko taxaw wax na ma ma dikkee ma ne ko naam mu ne dama la jàppale te dinaa la jàppale ba ñu xam ne ne première dame nii la war a mel. fii tey ba fii ñu war a ma di fekk Adja Khoudia kon loo nar ak sénégalais ak sénégalaises si boo bis boo toogee ci gouvernement bés bu ñu duggee ci pale bi. Adja Rabo Adja Khoudia vous avez la sama àllaaji bi bu duggee ci pale bi daañu def ay xéewal xéewal dina wàcc fépp fi xéewal war a dem rek di lekk xéewal dinañ fa dem nit ñi dinañ lekk nit ñi dinañ naan. xéewal yi daal dinañu téye xaalis te di ngeen di ngeen xaalis soobee la xéewal yi dina ànd ak xaalis xéewal yi dina wàcc partout dans le monde ñëpp ko war a jot ci xéewal yi dañ ko jot insha allah jërëjëf ajaa ko jo ajaa première daal nii la war a mel parce que <laughs> ah, jërëjëf jërëjëf jërëjëf bu leen kàccatu léegi suñ ko defee bu soobee yàlla ci kàttanu yàlla ak yonent bi li ñu bëgg mooy lépp lu ñuy def dañ ci am ndigal parce que bu ñu bu ñu demee bay nekkaat candidat 2024 bi dañ cee tënk waxtaan ci parce que suñu programme dañu bëgg def programme boo xam ne kenn ku nekk xam nga jàmm dafa neex eh. xam nga jàmm dafa neex mbay di hmm? jàmm loo ko jëndee jar na ko wallaahi barke sëriñ Massamba Mbacke barke sëriñ Touba barke sëriñ Salim Mbacke ci seen leer laay géeñ jàmm loo ko jëndee dafa neex jàmm la ko jëndee rek neex na ko fii laa leen woo ngeen dëgër bopp mos leen ma ngeen ne tekk mos leen ma ngeen ne tekk ngeen mos leen moo tax ngeen ñu cas seen loxo te man ko <laughs> ah ma ñëw waaye ba ngeen ko waroon mos mosu leen ko waaw bi may wax leen fii toj na fii nar a jax man amatuma lu may toj parce que dëkk bi toj nañ ka <laughs> man kay damay tabax béy ah. di dama fas yéene tabax réew mi parce que fu la ñu waroon def yëpp xale yi toj nañ ka tëj nañ ko léegi kay man damay ñëw defaraat ba mu kawe toog ca kaw tabax ca kaw ba mu eh. ndax ca suuf rafetul lay am eh. waaw léegi nag bu soobee yàlla gis nga Sénégal nañu jàpp na Sénégal c'est un pays noble xar kanamu Sénégal fu mu ne nii dafa doy waar investisseurs yi ñu ngi commencé tiit pour ragal ñëw ñi amoon ñu ngi téye ñu doon korkoral ñu ngi ñu ngi téye liñ korkoraloon ñu waroon maye ñu ngi téye seen alal parce que dañoo tiit dañoo jaaxle gis nga réew mi dañ ko war a defar yàq boo xam ne boo ko yàqee ëllëg da nga koy soxla loolu mooy indiwaat li nga xam ne moom mooy départ à zéro te départ à zéro boobu daf ñuy tardel mm. nañu bàyyi nopp kilifa diine yi gis nga tey Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ne parce que démb maa ngi wax ménager ma njaay ci église yi wax ak tamit ñi nga xam ne nekk ci jàngu yi gis nga réew mi boo koy jëlee da nga koy def ci laïcité mm. jox kenn ku nekk ak gëddëm tarixa bu nekk ak gëddëm diine bu nekk nga jox leen seen cër jox leen seen gëdd am na loo xam ne wax dëgg yàlla warmal kilifa diine yi jox leen seen seen seen matuwaay ba ma étudiants yi xoolal léegi tey xam-xam bi fi xam ne xale yi fa ne waroon jàngee étudiant droit nga xam ne nag xam fan mooy yoon ñu daal di koy taal taal bibliothèque bi waaye nag yàlla baax na da ngeen xam ne ma dikkee intellectuel la danaa summi sama bu président dem di jàngale élèves yi di jàngale étudiants yi ndax man naa ko te naa ko def du ma doon président buy toog di signé rek de damay wàcc ci université di joxe ay cours droit ak juridiction xanaa loolu safu leen mbooloo mi ni ngeen nii jekk na tel musique bi macha tey alaaji ma dikkee ñii jox ko réew mi kii moom moo mën a yor réew mi yàgg na koo wax waaye defe naa ni nag alaaji ma dikkee incha bu neexee en 2024 yow la jox réew mi borom mos nan ko su ma mosee di ngeen jàkkamtiku. béy di béy di dama yàkkamti sénégalais yi mos ma béy di man kenn du ma capp di ma bàyyi béy di man boo jëlee sa sa baalam sànqalam bii ba capp ba ñam ni da nga xam ne ñam nga lu saf suukar da nga xam ne ñam ajaa ku de soo ko mosee di nga tàkkam ci bu mosal seet mosal seet soo ko mosee di nga tàkkam fépp